jërëjëf téléspectateurs yi am mbégte nag dellu si waat ak yéen ci seen émission wareef ci télévision Futur Média ba tey ci ñaareelu xaaj bi nga xam ne mbégte la ñuy am ci dalal suñu doom seen doom suñu caan Zey. Pape Ndiaye Lo Ndiaye. waaw man ak sama caat nag fer na fi mu ne. ah. Mhm. alaaji ban preuve nga ci am. Euh, téléphone yi may jot day bari. waaw El Hadj man téléphone yi te kenn takkul. man daal loolu jaaxal na ma yow tam da nga ko seeral trop. bala ngaa takk da ngay seeri nit jëkk soo ko takk. waaw. waaye téléphone yi moo gënal takk kii ah. ndax ku téléphoné ni ma caat léegi tubaarkàlla ñaan waaw ku ko dégg da ngay sawar waaw moo tax ma xam li ma yor mat na juróom waaye dañ maa doyagul ah xam nga comme day caatum yaayam ah. di caatum maamam bëgguma kuy débëri ak kuy cotiser <laughs> caat caat sa papa seeral na ko de ba damay ragal nga lamb est-ce que doo fi lamb. man maa ngi ci ginnaaw lu mu wax rek noonu la. na tey ah. rek na tey rek. allah ji dama yàkkam ci xew de. waaw ah, waaye yàkkam di la yàq rek. xew daal laa yàkkam ci allah ji ak lang eh, waaw. Ndeye Diouf mu sëñ Fallou laay oo ginnaaw yow munoo def koy voyagé Banjul ak ak ak. déedéet ngoyaan laay rek. waaw noonu laay def bëgg gis oo ñoom Djibi Dramé waaw waaye damay gis kuy bëgg dem Chine rek ngeen <laughs> bisimilah. yéen yi ñu am yëpp yàlla na yegg. ci barke Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. naa tamit téléspectateurs yi jàkkaarloog seen télé di seetaan Wareef nuyu naa leen bu baax a baax nag ci nekk sa tur ak sa sant. Zey xam nga ni nouvelle bi yëg nga ko. Mhm. Hmm, mhm. yàlla bu baax baax baax mhm. baax. Euh, kon bisimilah. Tata Tiguène nouvelle bi moom dafa di loo xamante ne neex na ci bépp nit boo xamante ne yaa ngi dund ak insuffisance rénale. Mm. mais tamit ci bépp sénégalais. parce que ku ko dundul gis nga nit ku ko dund bu dul dara sax li ngay gis ci télé yi. daw na yaram kon suñu demee ba ñu ne léegi hémodialyse ak dialyse yépp buñ koy def gratuité lay doon. pour pour pour pour, pour maladie Tata Tiguène c'est un grand pas. Mm. te defe naa ne dina permettre. surtout maladie toujours ñuy am espoir mën cee génn un jour ndax ki nga xamante ne yaa ngi mën a économiser yaa ngi mën a euh, bañ a fay hémodialyse yooyu mm. euh, xaalis boobu mën nga ko économiser mën nga ko dajale mun nga ci sax envisage xëy na ëllëg ak si biir comme que transplantation bi amagul Sénégal nga mën a génn dëkk bi mën a faju kon defe naa ne loolu espoir bu rëy la ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy malade yi et un grand grand bravo au gouvernement sincèrement parce que parce que euh, douze mille personnes mm-hmm. euh, def nañ espoir bu mm-hmm. bees si douze mille personnes te douze mille personnes partie population bu bëri la ci Sénégal. doo fay dara doo fay waaw. loolu lu kii la voilà. maa ngi doon wax Alaaji ne am na yeneen jéego yu des parce que. su dee douze mille personnes te mu benn unité. Mm, day doy waar parce que benn unité bi tata dégg tamit problème la. Mm-hmm. parce que mënuloo dëkk Matam. Mm-hmm. wala nga dëkk Tamba. Mm-hmm. wala nga dëkk Kolda bëgg ñëw Dakar pour def say dialyse. su fekkee ne amoo fi mbokk nag. su fekkee ne amoo foo dal Dakar. da nga nar a def say dialyse trois fois par semaine. ak attente bi ni muy yàggee par rapport ak benn unité bi. taa dégg mënul nekk mënul nekk su fekkee ne nag jën njëkk nañ def jéego ne euh, gratuité bi léegi am na il faut que ñu attendre à ce que région Sénégal yëpp daw ñëw ci dakaar kon su boobaa benn unité bi mënul jël ñëpp en charge faudrait que nag ñu jéem a ut région bu nekk am unité woon te te ta dégg tamit mm. euh, euh, étudiants yi mm. ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy def médecine mhm. gën ci farlu parce que suñu ubbee ay unité tamit te mhm. amul ay médecin wala ay docteurs yoo xamante ne ñoo fa nekk bu ñu fàtte ni ñetti alaaji ñetti docteur moo am ci ci ci ci douze millions de personnes waaw ñetti néphrologue ñett exactement suñu ubbee tamit ay ay ay centre ak ay services yi pour accueillir malades yooyu te mm-hmm. amuñu néphrologue yoo xamante ne ñoom ñoo leen di faj du mën a sotti tamit faudrait que population bi kenn ku ci nekk ñu ne six étudiants rek ci am de sax six étudiants ñetti docteur ak six ñu koy jàng voilà six étudiants tata dégg ñooñu suñu génnee sax mënuñu couvrir Sénégal yépp mm-hmm. nit ñi war see gën a farlu te xam ne avant tout mm-hmm. nañu def du social. Mm-hmm. avant tout nañ ko def pour mën a dimbale parce que faj dafa di métier boo xamante ne. Mm-hmm. dafa laaj nga am sensibilité wu ak mm-hmm. nga am. yenn xol yi pour pour njëkk koo mën a def parce que avant tout c'est du social. mais Zey defe naa ni euh, sénégalais aussi. Euh, comme malade yu bëri yu ñu fi jot a waxtaanee ci biir wareef. ci ñu ci ëpp ci sénégalais yi tamit umpale woon nañu feebar bi. umpale feebar bi ñu ci bëri soo leen waxoon insuffisance rénale lii léeg nga taxaw ak kenn koo xamante ne nekk mu ngi koo yor di la wax dama feebar mais pour ko nga xam dëggantaan feebaram naka la tëddee loolu ñu ci bëri dañ ko umpale woon te sànq am na soxna soo xamante ne mu ngi woote mhm. xam nga ñeenti waxtu mhm. nga koy tëdd Euh, trois fois par semaine. par ma voilà muy muy fukki waxtu ak ñaar ah, disay jëlëk ci ligne bi allo <coughs> allo oui salaamaaleykum. maaleykum salaam ku baax. waaw man la man la professeur Sandaxa Dieye. ah ñu ngi lay ah. nuyu professeur. ah maa leen di fay. ñu ngi lay dalal. Mhm. waaw di rafet bu baax seen émission bi. jërëjëf professeur waaw a ci bëggoon dugg tuuti rek. yow rek la ñuy déglu. waaw pare nag fi ma nekk nii newuma ci newuma Ndakaaru maa maa ngi ci ay bor Matam. Mm-hmm. waaye nag euh, émission euh, euh, buy wax ci instance pénale moom dafa daf mu yitteel lu bare. dëgg la. Mm-hmm. waaw moo tax bëggoon dugg ci émission yi pour wax ci sama soxla tuuti. ak sama xalaat tuuti. bisimilah ndax fi mu nekk nii ñooñu nga gis noonu am instance pénale dañoo a jàppale lu bare bare bare. dëgg te te te fan yii yëpp ñu wax ñu def jalis bi mu mu daal di nekk loo xamante ni day ne gratuit. Mm-hmm. waaye am na it beneen fànn boo xamante ni lu lu mot lu mot a sóoraale la mooy maanaam dafa leen transplantation. exactement waaw ndax mbirum transplantation maanaam mbirum greffe de rein. Mm-hmm. dafa ne loo xamante ni lu am solo la. Mm-hmm. te man loolu dama ci jëngatu lu bare bare mm-hmm. ah, ak sama ay naataango yu nekk ci euh, hôpital Dantec ak yi nekk ci Ndakaaru yëpp. ak Sénégal waaye dafa am loo xamante ni mooy njëlbeen njëlbeen gi moom mooy. Euh, dañoo war a seet ay donneur ay donneur d'organe mooy maanaam koo xamante ni mën na may moromam. te loolu nag ñu koy mën a seet surtout ci famille bi. Mhm. Mhm. ci famille waaye également am na nit ñoo xamante ni yàlla mën na ñuy ñu ay ay borom volonté leen xamante ni mën nañu maye. Mhm. te loolu dafa am solo lool il faut ñu saytu ko ñu xool kan ak moo mën a jox sa morom. moo tax nag il faut ñu organiser ko te xam naa ne Sénégal dëkk jullit la ba nga xamante ni. Euh, nit ñi baax nañu baax bi nga xamante am ñoo xam ne xam nga ñaari nga am. soo ci amee benn boo xamante ni fonctionné na mën na fonctionné sa biir bakkan mm-hmm. waaye am na beneen bi nga xamante ni mën nga ko may keneen mm-hmm. waaw loolu nag loolu nag moom laa lay wax nii euh, moom ci loolu laay yëngatu mm-hmm. alors lii nag euh, waa ACID ñoo ma wax ni mooy émission pour bi ngi daw ma ni nag daa lu mu sole sole sole naa ci dugg am na solo pour pour wax leen leen nag ñu ñii ñi ngi ñi ngi yëngatu ci loolu am na solo te li ñu bëgg def mooy ñu organiser wu nii Sénégal mm. pour wax kan moo mën a joxe organe ku mën a le don d'organe mm-hmm. maanaam ci fan yu néew yi di nga daa yàgg incha allah mm-hmm. daañu taxawal kuréel bu nga xamante ni mm-hmm. képp koo xamante ni da ngay da ngay joxe danga bëgg a mayee sa sa organe sa sa bakkan nga euh, ak waa famille bi yëpp ñu ñëpp mën nañ leen xool saytu leen ba xool ki mën a jox ak ki mënul joxe kon yaa ngeen di organiser wu yaa ngeen teg ay jéego yoo xam ne képp koo xam ne bëgg na may roñoo mu di mbokkam mu naka la war a def waaw ñu ngi ñu ngi ñu ngi dox ci jéego yi balaa yàgg incha allah. waaw ñun daañu ñëwaat fees leen beneen émission boo xamante ni bu gën a yaatoo ak yow ak ñeneen ak ñeneen. waaw kay ñu toog ñu wax leen fan lañ ci toll. incha allah incha allah ak ñun naka lañ ko bëgg a defee. incha allah bu boobaa Sénégal yëpp foo taxaw ci Sénégal. waaw danañu xam naka la naka lañ ko woon defee naka lañ koy organiser. incha allah te ministère de la santé daan ci jàppale ñëpp daan ci jàppale maanaam euh, euh, hôpitaux yi ak ak euh, médecins yeeg yëpp. comme ça opération bi ñu koy defee fii ci réew mi ñu koy yu koy mën def ci réew mi waaye waaye xam nga li ko jiitu mooy. waaw ki nga xamante ne dañ ko war a jox. Ah. dafa war a dañu war a xool yaramam lan moo ci nekk. waaw ndax maanaam xam nga xam nga kuy kuy def dialyse. waaw euh, da da da ngay soxla deret. dëgg la te deret jooju dafa am ay dépp ñu leen ci jox yoo xamante ni maanaam ñu naan du globule blanc. Mm-hmm. buñ la ko joxee yow dafa am ay anticorps yoo ñuy développé. Mm-hmm. maanaam anticorps yooyu boo ko développé. Mm. am na yu bëri boo ci amee lu bëri bëri bëri. Mm. buñ la da koy a mhm. loolu moo tax foog ñu saytu loolu yëpp yëpp ñu xool. waaw saytu bi euh, professeur. waaw saytu bi day yàgg wala lan. déedéet loolu loolu du yàgg du yàgg loolu maanaam ñun ñooy il faut ñu organiser wu. waaw il faut ñu am structure boo xamante ni maanaam euh, service boo xamante ni fa lañ ko fee mën a defee. waaw euh, professeur. waaw est-ce que fu mu nekk nii Sénégal. mën nañ fi opérer nit jox ko opération transplantation bi. waaw waaw loolu si laa wax ni ma loolu dafa dafa dafa am lu koy lu koy jiitu. ah étape par étape ngeen di def. mooy. waaw ki nga xamante dafa dafa recevoir euh, ree. waaw moom lan moo nekk yaramam yëpp. ki nga xamante moo koy hmm. ñu xool it moom it lan moo ci nekk. waaw ndax dafa am ay antigène ñoom antigène HLA yoo xamante ni dafa war a koo ci ñoom ñaar. waaw loolu moo tax boo gisee européen yi gën ñu raw. dëgg la ak américain yi. Ah. par exemple bu ko France euh, boo newoon tey jii par exemple Allemagne. waaw nga soxla roño. ka mm. euh, nekk Luxembourg mën na la may roño. Mm-hmm. dañu am dañu am dañu organisme ba nga xamante ni. dafa am banque de banque de boo xamante ni. ay banque la banque de données. de données yoo xamante ni képp koo xamante ni da nga ko soxla rek. waaw boo duggee ci ci ci serveur rek. waaw ah, boo demee Brux boo demee Estonie. waaw wala nga dem Allemagne wala nga dem Pologne. waaw diw kat mën na la ko may. waaw mu nekk chaîne de solidarité boo xamante a mag. loolu la ñu nga xamante ni képp koo xamante ni da soxla rein. waaw tey jii ñun la ah diw kat mën na la may ndax diw moom moo yàgg moom yéen yéen a la te liggéey te te liggéey boobu daal du yàgg. loolu du yàgg incha allah balaa yàgg incha allah da nga ci ñu wax ci lu bare bare bare incha allah ci fan yu néew. incha allah ñu ñu ci taxaw nii. waaw uh, man xam naa daal duggaat ci yeneen émission yi mën xëy na suba mu duggaat ci. waaw incha allah. gën leen leeralal mbir mi. waaw kay. waaw waaw ngeen gën ci am ay notion mais dama xaw a sore nag. fi mu ne waaw ñu ñu la ciy xaar ñu ngi la ciy xaar. waaw comme ça moo wax leen un peu ni ñu bëggee organiser ak naka lañ bëgg a def. incha allah professeur Dieye. ñu ngi lay xaar suba ci kàttanu yàlla. incha parce que am na ñu bëri ñu ñu interpellé ñoo xam ne compte compatible nañu ak seen doom. waaw waaw gëstu gëstu nañ ko. Mhm. ba fu mu nekk nii li des mooy opération bi waaye ñu ngiy buté sur opération bi. Mm. voilà parce que man mii man poste Sandaga Dieye man maa ci liggéey depuis boobu ba tey. waaw ak professeur Boucar Diouf ak ñooñu. waaw ak Abdou Niang ak ñi ci nekk yëpp ñu ci liggéey boobu ba waaw waaye nag fan yi nag moom dañu gën a accélérer mbir yi. alhamdulilah pour a sotti ñu am ay rencontre yu bare suñu biir. alhamdulilah yooyu ñu jéem a xool naka la mën a euh, defal plateau technique bi. alhamdulilah pour jéem a organiser ndax le door d'organe moom. maanaam. waa ñi ñi ñuy jox rek rein. ñi nga xamante ni dañu soxla par exemple moelle osseuse. Mm-hmm. dañ koy soxla. dëgg la ay ay am soxla ñi soxla graisse de dañ koy soxla dëgg la waaw kon nag bu ko defee rek dañ koy def pour Sénégal yëpp pour pour yëpp lañ koy soxla defandoo. nañ ci communiquer daal nañ ci communiquer bu baax. maa ngi ko voilà que yéen a yéen a ci war jàpp lu ba def pour que ñu ma gën a communiquer. allah incha allah pour que merci merci jërëjëf jërëjëf alaaji nañu sant yàlla